dikkati naa ndeke yoo bu ñii di gàmmu dee ñu ne na ngay ras dem tribune yéen kaay nan man ca procès Mame Mbaye Niang Ousmane ma ñëw tegal sa baaraam waaye faaw ma wax la nag la nga xam ni moo am ca terrain xam nga terrain CFA ci gaawu gii soxna yi gëm sa bopp yi dañoo woote woon ndaje fas yéene nag investir seen candidat Bougane Gueye Dany borom tekki jot na ngir nag 2024 tribune nan man maa ngi ñëw ci procès Sonko ak Mame Mbaye Niang may ma ma ne ko ay ca mu ne ma nag ca terrain CFA boobee la jigéenu Ndakaaru gëm sa bopp waroon ndaje yéen bi nan man neel war daje ma ne ko war daje mu ne ma ca ndaje ma ñu war a samp nag seen candidat ngir présidentielle 2024 bi yéen kaay bi dama waxoon nga ko ma ne ko ay ca koon soxna yi gëm sa bopp yooyee jagat-jagatee seenub demande juróom-ñeenti fan ci weeru mars bii lañ ko yóbbu jébbal ko nag autorité ba nga xam ni moo ko war a jël yéen kaay bi naan maan waaye le 14 bi bii Mamadou Gueye mi nga xam ne moom mooy maire bu Jidda Caaroy Kaw te terrain CFA Jidda Caaroy Kaw la nekk daal di woo moom it ay soxnaam jox leen ab demande ne leen déposer leen ko le 14 te ci demande boobee soxna yi Mamadou Gueye yi war fa daje ci même terrain CFA même heure 15 heures que jigéenu gëm sa bopp yi yéeni kaayub dee média bi naan ma njiital domaine la mu bëgg moom moo di jigéenu gëm sa bopp yi seen ndaje ba daal di ma ne ko turbine kan lan jox autorisation bi mu ne ma boo moytul ñu lankal ko ñaar ñëpp waaye buñ ñu ko lankalee gëm sa bopp mooy daal di perte ndax nag bëgg-bëgg ma Mamadou Gueye moom moo di ndaje gëm sa bopp bañ a am foofee ndax seen ndaje feneen lañ ko taboon ci beneen wax ci beneen bërëb gannaaw ba ñu bëggee amal suñuy ndaje daal di jolli te dañu wëlbatiku ñoom it daal bu dul tooñ lu mu bi naan maan en tout cas waa Benno Bokk Yaakaar moom moo di saboter investiture yu Bougane Gueye Dany tribune yéene kaay naan maan ñëwal ci procès Mame Mbaye Niang beeg Ousmane Sonko ko bi day doon na le jour des seigneurs le ko réewum Sénégal dafa mel ni dañuy diffamer nag wax ci nit lu ko safte du mujjee fenn tribune yéene ne ko en tout cas procès Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang bi day mang ca mbedd ma moom jiital Pastef nee kenn du ko àtte àtte tey kenn du ko àtte ëllëg waxtu woowu takk deer yi ña ngi ca alerte gaynde yana maar daal ne coow li coow li kay li ko indi leen la moom moo di Ousmane Sonko mi nga xam ne ñi ngi ko tëj ci këram tribune ne ko moo tax it patriote yi nee ñu xeex rek l'enquête ko dajee naan kon ak lu mën a am naj nañu Ousmane Sonko moom jiital Pastef bloqué nañ ko niki démb manifestation yi nekk ci Ndakaaru yàggul benn journaliste akub deputé ñu blessé leen bés bi le jour ma Guy Marius Sagna ci boppam la ñu blessé l'enquête ko dajee ne ma Pastef nee ñu Ousmane Sonko la ñu jël def ko ci présidence surveillée te du yoon Souleymane ni ki démb moom yeewi askan wi ci boppam la ñu daal di neutraliser Ousmane Sonko ñu tëj ko ràpp ci këram doom ji ñu ne ko doo dem lekkool moom jiital Pastef dellu këram ak i garde du corps am député yu yeewi askan wi nga xam ne dañoo ñëwoon jàppale Ousmane Sonko ku ci mel ni kuy Marius Sagna ñu daal di koy gaañ ci tànk source aanaan man ni ki démb ci place de la nation benn leader bu yeewi askan wi taxawaalu fa police bi da koo barricade ba mar day taali te démb nag woote nañu manifester ne na ñëpp dem cité kër góor gi waaye policier yu wër ndomb cité kër góor gi rek kër Wakaam ak Liberté 6 ak Bignona tenté nañu waaye taal wi sottiwul 24 heures yéene kaay naan kon xanaa doo xool mobilisation ba am ca Thiès am ca Mbacké am ca Kédougou amit ca Sédhiou l'enquête quotidien naan kon manifestation yooyee ci jàmm la am ndax nag dañu ko autorisé bu Kër Massar dong la ñu autorisé wul te boobee nag daal dinay defu bruit l'observateur naan kon déet bruit kay ni ki démb amul libération yéene kaay ne ko demoo ca Bignona foofee nga xam ne am na ñoo xam ne am nañ fay gaañu gaañu ay soxna def dung di manifester l'observateur naan laa la réew mi tàkkul bu bal tàkkee sagar xeeñul benn leader bu yeewi askan wi ni ki démb génnoo manifester agresseur yi ni ki démb faf ñoo yor coow la di génn nag di langaamu ci kaw nit ñi critique yéen kaay naan kon ni ki démb day yeewi askan wi mujjee nañu nag yeew askan wi ndax nag woote manifester gi mën naa jural réew mi waay direct news naan kon ay mën na cee bañ a am de ndax président Macky Sall dafa jël ay devant am daal di waajal bu nuppi les éco yéen kaay naan dàqu procès daal la awokaay Ousmane Sonko yi léegi nag ay étranger sax faf nañu bàbbeeku ñëw ci mbir mi vox populi naan Ousmane Sonko daal loo ci mënti dégg dañ koo tëj ci këram daal di koy emprisonné jëlub dictat teg ci kawam ne ko doo dem doo dikk mu daal di mer ba futtu patriote yi fekk si ko tribune yéen a kaay jox kàddu Aliou Ndaw ma jiite woon CREI yi Aliou naan procès en diffamation la ñu wax mbir la boo xam ne mën naa bañ yegg si fii nekkul mbir moo xam ne mën na cee déjitum nguur las yéen a kaay naan kon moo taxit ba sub dëgg gi ni ki tey la ci tribunal bu Ndakaaru les échos yéen a kaay ne attention sàkku nañu daal di dàq procès bi leen xel loolu l'observateur naan ña ngi ko jaaree juge bi mënta àtte lii te lii ci juróom-ñeent ciy fànn rek lañ ko mën a dàqee ndax tey procès bi mën nañ ko dàq lobs ne gëwuma ko Walf Quotidien en tout cas Sénégal yëngu na niki démb manifesté nañ ca Mbàkke ca Saint-Louis ca Ziguinchor ca Bignona ca Podor ak ci Thiès Sénégal daal di yëngu ci rythme yeewi askan wi tribune yéen kaay daal dina ndax procès dëgg-dëgg mënees na koo def ci mbedd mi laas yéene kaay naan maan waxtu woowu moom président Macky sàll ma ngay piis ndaw yi ne leen ne leen jàkkate leen ma xool fi mu toll nii tàllu ma seeni mbir xëyu ndaw yi la bëgg audité xool fu muy jaarale xëy yooyu yooyee tribune yéen a kaay naan kon moo taxi DSE ba nga xam ne moo nekk ca Côte d'Ivoire daal dina ñuy xamle ni nag président Macky Sall kese képp la ñuy topp DSE ba daal dina daam fay la ñuy jiital ak i collaborateur am ndax équipe la boo xam ni saa bu ñu tëggee fii ci Côte d'Ivoire ndam ñëw quarante coordination yëpp daal di ànd ak daam fas yéene jagat-jagatee président Macky Sall daal di sampaat beneen ndënd fas yéene jagat-jagatee président Macky Sall ànd ak moom ngir mu sampaat beneen ndënd te bu ko sampee Côte d'Ivoire xamal ko ni ndam li moom yaa koy jël tribune yéen kaay ne ko bu leen fàtte ni Benno Bokk Yaakaar ma ngay saboté nag investiture bu Bougane Gueye Dany yéeni kaay naan man bu leen fàtte ni it ni directeur général bu SNHLM Diagne Sy Mbengue daal dinay porté plainte nag maire bu Kër Massar Nord Adama Sarr critique yéen i kaay ma lii maa la koy leeral ndax nag maire bu Kër Massar noor dafa tuumaal directeur bu SNHLM ne dafa daal di jël ay terrain defar leen di leen jaayiwaat Diagne si mbeng ne mësta am te porté naa ko plainte ngir mu andi ay gindi ci lii mu wax ndax amul lotissement bi ci boppam juróom benn junni ci parcelle la ñu daal di leen di dogot dogotee ci marché école ak stade maanaam ay infrastructure infrastructure de te lotissement bii muy wax la woon ba tey te man maa ngi dugg SNHLM las yéen a kaay naan en tout cas réew mi moom jaxasoo na Sud Quotidien naan kon demal ba Sigicoor dem ak dikk dina leen të ndax bato ba Aline Sitoé Diatta ci boppam moo paan Le Point a kaay naan man wuteeg taxum fandaan Sinthiou Mbandaan pël ak Sinthiou Mbandaan séeréer ak bulem ak gaña bugu ak sidi bugu saa si tembe day teex teex may ree ndax juróomi téeméer ci kër robinet yaa ngay jolli ñii a dégguma ñoom ndax dëkk dëkkaan bu nekk Malicounda di nga am case de santé wala it nga am bërëb boo xam ne fajukaay lay doon tribune yéen kaay naan kon bu leen fàtte ni réewum Sénégal a ngi jax Dakar Times naan kon bu leen fàtte ni waxtu woowu États-Unis ci boppam ña ngay tàccu Sénégal ci police bu xarañ bi libération yéen kaay naan man coow leen ci faatub xale bii bébé bu am juróom-ñaar ci weer xale boobee dafa faatu libération ne ma ñu yóbbu ko l'hôpital Philippe Maguilène Senghor te yóbbu ca l'hôpital boobee la médecin yi alerté gendarmerie ndax nee ñu daal mbir mi dafa takk suuf waajur yi nee ñu dañoo nelaw ba